البدل والخلاف يا من به mbokk yi ñu ngi leen ndokkeel ci weeru rajo bi ñu nekk di fas yéene ànd ak yéen ci waxi Cheikh Ahmadul Fadil yu am njëriñ yi nga xam ne ay bind ci ñun Sëriñ Fadilu nee na saa bu weer teroo xamal ne weer génn ci sa dund ca dootu dellu si ba mukk saa bu weer teroo xamal ne weer génn ci sa dund te dootul dellu si ba mukk wasalaamu aleykum wa rahmatullah يا بادل البدل والخلاف يا من به